Chez le showroom, Biz Collection, Lumière du Sénégal, Leral TV, Huile J'adore, AMD Corporate. Namour. waaw bébé Diop. sa lampe bi nag. waaye benn marchand ambulant moom mu jaay vite fait. lii de bu doxul nga waaru. toogal foofu noonu. lii maa la koy branchel. daal la ko. mais waa ji dóor na ma. ma ne ma. maa ngi leen di changé ampoule bi ah. léegi lampe bi fu mu jëm. gars yi soriwul quoi lumière du Sénégal weesu ay lamp leer ba leeral Sénégal ay lustre pendule hublot lanterne classique wala bluetooth couleur boo bëgg forme boo tàmm pour jox sa intérieur wala sa extérieur ambiance bu méngoog sa bëgg-bëgg rax ci ba ku nekk mën fi ñëw Restaurant chez Katia. Venez passer un agréable moment en famille. Vous y vivrez des moments inoubliables, même en ces temps de Covid-19. Port de masque obligatoire. protégez-vous et protégez les autres. Huile J'adore, showroom.sn le showroom.sn le showroom.sn le showroom.sn acheter en ligne ñu livrer la ko comme flash sa commande lañ lay andil nga fay ñu cash acheter en ligne ñu livrer la ko comme flash ji tudde nañ ko turu rëy turu ànd ak mbégte doom ji tudde nañ ko promobile 60 di turu ànd ak réseau 4G plus waaw loolu moom tuxu la di waaw 4G plus nag xanaa perte réseau jeex na ci Sénégal doom ji nag sunu doom waaw sunu moomeel bis ni ki tey woo ma ci sama 75 vous su ma la nee tay nit dafa la ndax juróom ñaari jikko ye dundal ba dee doo ko xam la nee tay nit dafa la ndax juróom ñaari jikko ye dundal ba dee doo ko say I didn't, I didn't, I didn't, I didn't, I didn't, I def sa maquillage bu baax nii yow yaa tristoon fii nii. waaw loo bëgg nag du ma dund ah moo fi nag nag da jooy jëmale suba nag moo ko souffrir dix ans ma chérie nga foog ni jotul sa xel bii nii nga ubbi ko yow tu penses pas Omar vidéo yi mu la yónnee ak photo yi yow sa xel ñaawu ci sa xel teeyul. tey ci sa xel teeyu ci benn yoon. amoo ci benn arrière pensée. ma yi xoolaatal sa doxalin sem semaine ngi nii ci ginnaaw sa kanam gi sadd nga jooy ba sa bët yi xonq tey nga ne dangaa maquillage nii ba saf sàpp nii def sa robe ñëw toog fii nii yow danga ma bëgg wax danga fàtte Abdou yow man xaw ma sax lan war a wax sooda Soda man damaa gis damaa dégg damaa topp Abdou am ay preuve yu leer naañ Omar ñëw ba ci man wan ma ay photo yu leer naañ photo yu ñu monté ak photo yu ñu monté wul man xam naa ko man duma xale magum jëmm laa te duma illettré en plus je suis pas photo yu ñu monté ak yu ñu monté wul loolu neex naa ràññee man nag dofuma xamal ñaar yow nag te toujours contre moi. ma chérie dama xam ne maa ak benn lay. yow yaay man maa yow situation bi nga nekk bu ma ci nekkoon place bi ma toogee ngay toogee. mais li ma gis solo daf maa leer. mais mënu ma d'accord ak yow ci erreur yow fi mu ne ci ay erreur nga nekk ni erreur fi solo ah erreur amu fi. Ah, waa léegi jàppal ñaar man de toute façon loo def maa ngi ci sa ginnaaw mais xoolaatal sa doxalin. sa gémmiñ xëy na nag sa doomu nday moo la koy wax de. dama bëgg nga xam loolu. nga maquillage nii ba saf. di wane ne amoo stress. non foog ma dund. ah li ma su baax na. waaw man maa ngi may nga ranger sa ba toog. tam ma jaar. ok. sama commande bi ma dem. su ma montre que ne li ma lay wax safu la nii. non même pas. bon Alpha Fatim maa woolu woon euh, pour que ñu mën a waxtaan. Euh, réunion bu ndaw bi nag c'est juste pour mën a leeral yenn mbir parce que ñoo yeewandoo ci kër bi donc euh, je pense que war nañ mën a dëkk si jàmm am na la lu jotoon xew fan yi ci ginnaaw euh, je veux pas que ça donc de ce fait looloo tax ma wax ak Toutou c'était compliqué ma convaincre ko parce que moom moom su tàngee ma loolu mais du moment wàcc na. li ma bëgg mooy Fatim nga ñëw nga baalu ko. d'accord. moo gën. jàmm moo gën ay donc euh, moom yaa ko fi indi donc mooy li gën pardonne s'il te plaît hmm? ok je pense que c'était ça. Cheikh franchement li ma la expliqué noonu la demee man instant bi dama jaaxle sama vie moo ndara yàqu da nga ndara toog un instant à l'autre rek yow nga gis net bi sama vidéo et tout ça sonn naa instant bi xoolal man xëy ma la ne sama petit frère nga j'ai besoin des conseils dama sonn. sow fan nga dugal sa mais attends mais keneen keneen ko yëg déjà. daa de confiance bu mu am ci yow nga koy trahir. am ah, instant bi loolu nekk sama problème. dana laa ko war a xoolee te pourtant jurul xale bi sama jëkkër man bu ma jàkkaarloo moom lan laa koy wax. ah kon yaay soo nga xam loolu. am jëkkër ba pare di njaaloo yow tu me déçois am na sax yaa ah. kan moo soxla yaa si yéen ñaar waaye ose nga de soo passé tey bonne manière. maa ngi jàngal bonne manière. waaw. yow même jëkkëram far. Hmm? mais tu vois pas ban ami. ami ma meilleure amie. waaw xam nga foo dugal sa bopp. mais attends tu vois pas li affaire de meuf nga may wax nii de. ben on est des amis depuis. mais affaire nga naan man ay ami mais attends man. xam nga man mënuma wax dara quoi mais là tu déconnes quoi yow xam nga c'est que saay léegi xam la moo fi des ah da ngay wax saay daaw de dëkk bi d'accord et puis on tourne la page et pour le cas de ce mec là non laisse tomber je vais gérer ok mu bari surtout pas si ok. d'accord mën nga ma defal loolu. t'en es sûr merci yow maa yoo ñëw déjà dama war a liggéey s'il te plaît dafa mën loolu. d'accord je vais le faire. voilà dafa mën dindi ko sa xel jeex na après dama koy gérer. tu sais très bien moi je bien am yoo xam ne mënu ma si àgg ak yow waxal dëgg bi daaw da tu sais que tu peux le faire. tu def ni sa bopp bu defee ni sa bopp mooy loolu naa ko gérer bu tiit ok. d'accord tu sais que je t'aime dama war a liggéey dama yaakaar après on se calme. ok bye. ok bisous. d'accord. tu sur la défensive xam naa da nga jàpp ne ni ñëw xuloo ko moo tax nga génnee sa griffe yi sa bët yi jaay tigresse. tout d'abord Sarah à propos de Feli naa ne man maa jur sa doom te xam nga kan mooy bàyyi. kon boo maay bàyyi war naa la gëm en plus le tests l'ont confirmé je suis bel et bien le père de Félix. quant à sa disparition je ne peux que me résigner boo koy gëm ni ginnaaw gisuñu lenn pour man dafa daw elle a fugué avec son copain te yàgg-yàgg elle va rentrer ensuite je reconnais que mën ak yow on a deux points en commun mooy suñu doom ak amour bi nga xam ne jot na dox suñu diggante je le sais mais ce n'est pas une raison que ñu continuer di vivre nii nga may iri sa kër di ma créer ay problème di créer ay jalousie alors que je ne t'appartiens pas yooyu yëpp xam naa ko je reconnais aussi que su ma la déggee ak beneen góor du ma neex donc il faut que ça cesse du yoon on est des adultes je ne peux pas continuer à vivre dans l'infidélité donc j'ai pris ma décision l'acceptes Bon, bon Tu l'acceptes ah, Bien sûr est-ce que jar na may poser question. coow jaru quoi. ku yàgg xaar. à partir de demain damay woo sama mbokk yi ñu dem dox diggante bi parce que damaa bëgg balaa yàgg ñu gaaw gaaw que tu deviennes. madame Tandian madame Tandian. je t'aime. daaw de yóbbu nga sama fit bi. ah ouais moo yëgal suspense <laughs> ko pour man de danga may bàyyi. moo yëgal suspense bi. sama <laughs> fit yóbbu nga ko. waaye <laughs> soo xam ci audiovisuel bi laay avec les émotions. merci merci mon amour. mais li nga wax tamit yëpp Feli dem so xaritam bi nga xam ne na kim nekkal il est bien peut jàpp ne mi ngi ci jàmm rek sama digganteeg naa tamit naa def lépp lu mu mën ba mu ratax mu nekk sama mag ma nekk rakkam. maa bëgg s'il te plaît je te connais sama aawa tu dois l'accepter je l'aime aussi et je la respecte beaucoup je l'adore beaucoup maa bëgg nga respecte ko yow tamit. lu neex rek lay wax tamit nag. tellement capricieuse. mais taxul tamit ma ñaareel xale bu jëkkër. t'inquiète. fàtte woo de. loolu fàtte na alo Dada Allô, Soria Ça va bien. En fait, dama ñëwoon nii ba sa côté kër ma ne xaaral ma jaar suñu waxtaan. ok léegi maa ngi lay localisation maa ci benn restaurant. da ngay génn ok. non non non bëgguma la déranger parce que fi ma nekk nii instant bi dafa xaw a sori. non prends ton temps jël sa temps jarul yàkkamti. waaw d'accord envoyé ma localisation bi. ok merci. C'est qui ça, li laay waxati ndànk sa jalousie bi xam naa ko Soraya c'est juste une connaissance daf ma soxla. bon oh, ba ah, xam dem toilette ñu d'accord vas-y. nekk bàyyi ko maa ngi nii ci benn resto ak Daouda Soraya woo na ko ne ko da ko soxla xaw ma lu mu nar nag. waaw baax na maa ngi lay toppee ni yow lan la eh, man maay wax yow danga ma fàtte maa dama lay dugal ci net bi daal da ngay li ma la man dama lay kalaate da nga li la wax danga fàtte danga ma jëga ma noppil calme toi li ma la ngay def da nga dof <laughs> nit dafa lëndëm juróom ñaari jikko ye dundal ba dee doo ko suma la nee taay nit dafa lëndëm juróom ñaari jikko ye dundal ba dee doo ko mën ngeen ñu jot ci numéro whatsapp bi ñu leen di wan lumière du Sénégal illuminez votre intérieur gel hydroalcoolique à votre disposition. Mangez sainement. Respectons la distanciation et limitons les contacts. Nokia, c'est votre bien-être avant tout. www le showroom SN mooy suñu seet di nga mën commandé lu la neex jot ko si saa si soo yoree weccit accessoire pour téléphone bureautique climatiseur smartboard téléphone télévision ak ay ventilateur matériel électroménager loo xalaat yépp ci biir te dañ lay livrer fépp foo nekk jàppal yaa ngi ci biir wol 77 855 bés ni ki tey woo ma ci sama 75. I am Decorporate